moodu-moodu yu bëree bëri yoo xamante ni daanaka def nañ at ci réew mi te Covid 19 bi daal leen fii téye ñoom nag jamono ji ay jafe-jafe yu métti métti la ñuy jànkoonteel ngir mën a dellu ci réew yi ñu doon liggéeyee jafe-jafe yooyu nag état bu senegal da leen cee seetaan ndax jéemu ci lenn. ndax am na ci ñu bëree bëri ñoo xam ne seeni séjour jeex na. Ah, problème bi lenn rek la mooy ñun dañoo yor ay contrat jàmbur am ñoo xamante nii euh, ay marchands ambulants la ñu nekk Italie. bi ñëwoon fii seet ci njaboot gi Covid 19 bi téye ñu fi moo bi ñu fi Covid 19 bi téyee bon ñu waroon a delluwaat saa yi su ñu jógee rek pour dellu am ay jafe-jafe benn mooy compagnie yi nga xam ne ñoo ñu indi woon dañoo lank bañ ñoo yóbbuwaat am na ci ñoo xamante nii dañoo jënd dañoo jëndaat ay billets te taxut ñu dem ñun nag bi ñuy ñëw am ñoo xamante ni ay ay seen séjour deux mois moo ci des trois mois ñun ñu féete Italie ndax problème bi du Italie donc France Amérique Asie ñëpp fépp la ndax moodu Modou yi ne sama ginnaaw ëpp nañu presque junniy nit waaye ñun ñu ci mën a ñëw rek ñoo ñëw di wax di leeral ndax dañoo am benn groupe boo xamante ne plus de 600 personnes ñu ngi ci waaye tey jii comme ñun ñoo ñoo ñun la suñu loxo oyof ñu ñëw fii pour leeral leeral bi ñuy leeral nag mooy sunu séjour yi mu ngi yàqu gouvernement bu Italie daf ñoo may dele ñi nga xam ne ni seen këyit yi dafa jeexoon dañ leen a may délai bala 31 décembre euh, août te août bi ñëw na te man mii di wax ak yow rek fi ni nii daanaka ci catu ut laa war a ñibbi ndax sama billet maa ngi waroon a ñibbi mars ñu may puus di ma puus ba yóbbu ma ci catu ut te sama séjour jeex na depuis avril te dañ ne boo dugg boo dugg si août avant avant avant 31 août séjour bi mënatoo koo renouveler koo xamante ne ni marché ambulant la daa war a dem lijjanti xaalis bu mu dugalee këyit ndax tubaab bi mayee wut pour nga dugal këyit gi rek parce que di nga fere 600000 francs dimbalañ ci vol bu ñu mënta wàññi bi moomuñu compagnie yi tamit ñu yombala nu ko mën ma a dellu fan nekk ndax sama séjour jeex na man mi sama séjour jeex na depuis mois de mai te jigéen laa wàcc fa sama njaboot ak samay doom war a dem fekk fa baru luyaas bor fekk fa boru kuna fekk fa baru ndox ak gaz loolu yëpp mi loolu yëpp mi ngi tegu suñu ndodd tey wax dëgg yàlla liggéey fa dong lañ ko yaakaar mënuñu ko am fi ak war a dem renouveler suñuy këyit te dinañ ciy def lu ëpp 600 000 francs CFA kon na ngir yàlla ak jëmi yontu bu tedd bi suñu gouvernement bi nanu dimbale ay doomi réewam sàcc wu ñu defuñu leneen dañoo dem rek pour daani suñu doole nanu dimbale ñu delluwaat fan nekk daan suñu doole dellu siwaat ko ci réew mi bokk kook jullit yi nga xam ne moom lañ leen di laaj ci test yi ñuy def laata ñuy dem loolee nekk na lool nee nañu jamono ji amuñu ko ndax ku toog atub yàlla cim réew liggéeyoo fan ngay jëlee quarante mille yooyu fay test. Euh, ministre de la santé lañ bëgg a waxal mu jël décision nu mu gën a gaawee texte yii mu teg ci sunu ndodd bi naan kuy dem na nga def quarante mille dañoo lànk ñu mënuñoo fay quarante mille dañ koo amut ndax mënuñoo fay def juróom-ñetti weer juróom-ñeenti weer ñuy fayloo quarante mille franc ñii am nañu dagg six six cent mille texte yii fi mu ne nii am na ñoo xëy de def nañ ko ba pare te dañ leen a annulé waat te pour ñu defaat ko amuñu ko. waaw juróom-ñetti junni tabas ak tabaski bi jëb si liggéeyoo munoo ko fii bari na ñoo xëy dàq nañ leen ndax délai ba jeex na ñu li ñu bëgg mooy gouvernement bi jël ay décision nu mu gën a gaawee dellu ginnaaw nu mu gën a gaawee ci ñu juróom-ñetti junni yi. ndax dañoo sonn te ñun rek ñun rek ñoo sonn fu mu nekk nii loolu nit ñuy wax wax wax di waxaat du bëri wax ab bëgg mu leer la 40 000 la bëgg nu nañu teggal ñu ko. bañu ñu ko dañ koo amut ndax nit ku nekk fii am at wala nga am fi 9 mois xam nga ne yoratooloo dagg bi bay wut ay 40 mille léeg-léeg sax da ngay def tas yi nga dem bàyyi defar ñu la laaj ñu la ko wala soxla ñu loolu nag ak yàqukaay la dañoo bëgg daal suñ droit yi nga xam ne ñun moom lañ am siq koog ñoom ñu delloo ko test yi gis naa ñaar nit ñoo xam ne def na nañu ñu annulé seen i ñu war a dem defaat 40 mille francs ci jamono ju métti ji ci ñun wax dëgg yàlla métti la bu ñu mënoon teggil test yi dina baax torop jafe-jafe yi nga xam ne nag moodu-moodu yi moom la ñu teel mu teelee na dellu ci réew yi nekkoon nee ñu état bu Sénégal su fekkente ne am na diplomatie bu dëgër na waxtaan ak yenn compagnie yi ngir ñu wàññi billet yi. ak def euh, diplomatie bi mu ne Sénégal am na ko mu dox ko nu mu gën a gaawee ci compagnie yi nga xam ne nii ñoo ñu fi indi ñu delloo ñu ñu ñibbi balaa la 31 août 31 août ay mandaari la ñuy doon fii waaw te kenn duñu din kenn duñu dimbali ay milliards la moodu moodu yi di participer ay milliards man suma la woonoon sama Western Union da dangay daal sa gémmañ sama morooman sama moroom ak moroom moroom bâtiment bu àggut fii ñun ñi ñoo ko moom ndax jafe-jafe yi bari na te kenn yoru suñu njaboot ñoo yor suñu bopp ñun ñaanuñu kenn dara ñaanuñu gouvernement dara ñun suñuy droit la ñuy laaj droit bi mooy na bàyyi juróom-ñetti junni yi ministre de la santé laay waxal waaw maanaam yàllaa ñu jàppaleeg ndimbalu sutura ak ndimbal suñ tubaab jàppale ñu waaye dara lu ñu defal loo xamante ne bii luñ mën a teg bët la amut tubaab yi nga xamante ne bi ay nasaraan lañ ñu nekk ci ñoom sax seen loxo dal na ci suñ kaw dalati suñ kaw te ñoom ñu julit te duñ bokkuñ sax aw xeet nga xamante ne bi loolu nag yéeme na lool munu si wax lépp ci télé nag. ndimbal gi nga xam ne état bu Sénégal nee na moom la jagleel moodu moodu yi ci Covid 19 bi ñoom ñi nee ñu gisuñu ko. et ñu ngi interpellé Mame Diarra Fam di député de la diaspora ndax nee ñu jéemul dara ci mbir yi. jëmm ji di wax ak yow gis ci boppam ñun ñii kenn gisu sa bopp waaw waaw nga ko waaw man de gisuma ko dëkk ba ma ne gisuma ko kuñ ko kuñ ci jox man mii di wax ak yéen woo naa ambassadeur ba mu woo ma Ablaye sek man si sama jëmm man man def naa ay démarches ba envoyé ko vocal xamal ko ne ko ndimbal loolu bëgg nañ cee jot maam jaaro faam mi nga xam ne nii daa ne ci télé bi di ratatati mooy sunu mooy sunu député na jug taxaw si ñun waaw bu waree mën a dem ba ci àll bee di lijjanti suuf te ñun ñii di doomi dëkkam fal ko di di ay moodu moodu mun ta taxaw benn débat bu mu taxaw dimbaluñu na ci taxaw yow maam jaara faam yow laay waxal taxawal si juróom-ñetti junni yi ak sunu avion dem ñëwat bu ñu ñibbiwaat waaw Amadou Ba yow it même chose kenn déggu la ci waaw taxaw leen sunuy mbir yi ñu ñibbi ndax ñun ñaanuñu kenn dara waaye ñun bëgg nañoo ñibbi wax ji benn rek la mooy ku ñu dimbale te yàlla tax ñaanuñu nag ndimbal lu ñu jox ñu def ko suñu poos waaye ndimbal lu ñu delloo ci réew mën jógee woon am fa suñu teraanga di ko delloo Sénégal loo rek la ñuy ñaan réew mu ne gouvernement ba fa nekk mi ngi jàppale ay doomam ci dem béeg dikk bi di kàdduy moodu moodu yi ndax nee ñu noonee la ko réewum Sénégal war a defee ngir jàppale leen ñu mën a dellu ci seen liggéey ndax lañuy am ci réew mi lañ koy indiwaat